Still on Africa TV News, some 82 migrants were allowed to disembark from the rescue ship Ocean Viking on the southern Italian island of Lampedusa on Saturday after being uh, stranded at sea for six days. Italian authorities granted permission for the vessel to dock in Lampedusa earlier in the day. The vessel, uh, the vessel which is operated by SOS Mediterranean and Doctors Without Borders rescued 50 migrants in the Mediterranean last Sunday and took 34 more from another boat. A nine-month pregnant woman and her husband were reportedly airlifted to Malta earlier this week. The move comes several days after Italy's new coalition government took office. A former Italian Interior Minister Matteo Salvini had previously banned rescue ships from dogging at Italian ports. Hmm. interesting um, <laughs> migration still uh, happening well maam ji lii moom foog naa lu nekkul lu bees wax nañ ci mhm, mhm, waxati mhm. ci euh, jàpp naa ne daal lii euh, xeex ko ba mu stop wala mu ñàkkaa am foog naa le du yomb ndaw yaa ngi dem ba léegi fu nekk ci àdduna ci wala ci ci Afrique ñu ngi fay jógee di dem foofu ci Europe euh, gis nga tamit ñi six days ñu ngi ci ñu ngi ci biir ndox bi waaye finally ñu gis ñi nga xamante mooy autorités yi foofu ci Italie ñu bàyyi sib bi mu mu laan foofu ci ci bi ci li nga moom mooy lamba Lambadusa seen island bi pour ñooy ñu mun a wàcce ci li nga xamante ne mooy ci boot boobu gis nga euh, li li li image yaa ngi noonu soo lan mooy sa réaction ci lii parce que wax naa la wax nañ ci waxati ci lu moom du lu bees. waaw du lu bees man kay euh, jëkkër ak jabar ji nga xam ne euh, soxna saa ngi ëmb ba am juróom-ñeenti weer dugg ci gaal gi. ànd ak borom këram waaw ñu ngi koy ñaanal rek mu mucc ak jàmm. ndax xale bi moom xam naa ne bu muccee yaayam ak papam bu ñu toogee di ko nettali coono bi. Eh, gëm naa ne moom dina xam ne àdduna yëpp coono la. Mm-hmm. waaye nag eh, yoon bi comme li nga wax la. xeex nañ ko wax nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk mm-hmm. ñiy soowee bakkan yi ñu ngi ciy xeex guddeeg bëccëg suba ak ngoon waaye li ma la waxoon rek mooy ne bu fukk di gas fukk di suul. du yomb de bari waaye pax du mun a am ah, ndax li tax mooy daf lay leer ne Amadou ñiy jóg di xeex ak ñiy jóg di dooleel ñiy dem ñooñu ñëpp sori wante wuñ bëgg-bëgg te seen gis-gis yi bu wutee tamit mun na nekk benn intérêt moo nekk ci ginnaaw ñoom ñëpp la ñuy def hmm. kon loola moo tax pour ñu sowee lii di yomb benn yoon Afrique ak ñi nga xam ne ñooy doomi africaine si segam ñu bëri ci ñun liñ gëm rek mooy tukki moo mën a sottal suñu am amu àdduna jàpp naa ne pour ñi dàkkal lu jëm ci wàllu tukki bi di yomb benn yoon alors su ko defee mu ngi noonu